ñi ngi sant yàlla bu baax ci ay xéewalam ñi ngi koy sant ci jàmm bim ñi defal di ñaan yàlla mu def ko ci Sénégal yëpp mboolem jullit ñi fuñ mënti nekk ci kaw suuf yàlla defal leen jàmm defal leen tawfiq ñi yegg ci julli gi ci jàmm génn ci ci jàmm mu ànd ak tawfiq ak barke bi jaay rasulillah sallallahu alayhi wa sallam comme liñ doon wax rek ak liñ wax sànq mooy ne lii yëpp ci liggéeyal yàlla ci jaamam yi la bokk sëriñ bi yii yëpp daf koo def ngir buntu dëggal boppam dëggal ndonoom ci baayam yu baax yi ci magam yu baax yi waaye ci Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu ndax nit la koo xamante ne bàyyi lay fuglu ci lépp ci ay jëf ci ay wax dëgg la wax am na maanaa waaye jëf da ko ëpp jeexit dafa da ko ëpp jeexital sëriñ bi nag ci loolu la nekk alxuraan nag mooy soñ ci maye ak ci dundale ngir yàlla heure bu nekk wax nañ ko sànq ne yàlla li may jaam yi ëpp na leen dafa fekk rek dafa am ñoo xamante ne dañoo rënk seen bos ak weesi jàmbur yi waaye ñu dégg yàlla xam ni àddina doyedee xam ni jëf bu baax toll ñooñ dara du dikk seen loxo ñu rënk ko waaye lu dikk seen loxo rek soppandiku buñ ci njëkk a def mooy nuñ def ba jañ damu damu ñàkk ci jaamu yàlla yi ndax ci alquran ñi nga xamante ne dañoo am alal ami or di ko rënk te duñ ko dundale ci yàlla te nit dana dem ba alaxira du rëccu dara lu du dëppaat ci àddina benn simini rek ngir joxe ci yàlla yàlla nag bu paree dëppale jaamam te dëppale buñ ko waxee dëgg-dëgg mooy yàlla bind ci jaam bi kattan ci topp ay ndigalam ak bàyyi ay tereem mooy yàlla may la lu mel ni may la xam-xam nga góorgóorlu di ko tasaare may la kattan nga góorgóorlu di ko def ci yàlla waaye may la alal nga góorgóorlu di ko def ci jaamu yàlla yi ci buntu boobu la sëriñ bi nekk ay magam jiitu nañ ko ci mel ni al imam xasan radiallahu anhu yal na yàlla yërëm ko xarel ko aljana te saxal fi barkeem ci ñun ak njabootem yëpp magam jiitu na ko ci al imam cheikh tijaani yal na ko yàlla may wér may ko kàttan e, delloo ko ci sagoom waaye baayam seydi ali jiitu na ko ci waaye baayam moolana cheikh ibrahim baayam la dëgg la maamam sëriñam jiitu na ko ci ndax da ngay gis ay leetar sax muy bind mi ngi aji waaye mi ngi toppatoo tabaski gaañi ci gannaawam nu muy demee nuñ ko war a séddalee ak bu ñuy séddalee ñu ñuy jiital ñooñu nag kuñ jiital wala ku jiitu boo ñëwee ci yoon biñ nekkoon amoo benn ngant lu dul jéem a def lu mel ni liñ defoon te yàlla nag gën naa baax di may ci barab ba di ko rocciwaat yii yëpp ci xéewal yi may molana Cheikh Ibrahim la kom Mawlana Cheikh Ibrahim mbootam du jërmeel ay mayam ay may mayam duñ dog ay xéewalam duñ jeex il faut jamono bu nekk yàlla tegal ko ay nit yoo xamante ne dañuy jaay seen lépp ngir dundal yoonam bi wax naa ko sànq ne nekk ci yooni baay ay wax waru koo tegtale waaye ay jëf ñoo ko war a tegtal bàyyi moom da daan wax ne ñun dañuy joxe te duñ desal dara ngir rek bëgg topp yooni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëriñ bi nag moom kenn feesut bëtam ku dut Mawlana Cheikh Ibrahim moo tax géndeeku bu nekk rek dafay bugg a xool mbir moom bu gaaree lan moo ci war a nekk taxawaay Cheikh Ibrahim moom mu góorgóorlu pour am ci taxawaay boobu te loolu buñ ko génnee ci ndono ndono amatut buñ ko génnee ci mbaax it mbaax amatut te li ma wax sànq sëriñ bi bu doon nit mën naa dajal àddina yëpp may leen dana dajal àddina yëpp may leen te du ci xaar ku sant bal sax da nga fekk mu joxe ba këram tey luñ fa war a joxe daf koy fàtte maa ngi fàttaliku benn gàmmu joxe na ñaar téeméeri nag ba guddi gi ñuy taxaw di ko wax ne ko kër gi suba amuñ luñ togg waaye mi ma may laaj na ma kër gi amuñ suba luñ togg ak mbégte ndax gis na lu ñëw nii joxe na ko ba mu jeex te loolu mooy wiraasa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, day am dara du bëgg a dellu ci kër gi sax lu dul ne dara boobu joxe nañ ko ba mu jeex lu dul ne dara boobu gis na ne jaamu yàlla yi gis nañ ci seen xaq yoon boobu la nekk ku nii nag ku ko am ku ko amul danga ko war a ko am na danga ko war a garder noo koy garder mooy ci ñaanal ko yàlla ndax doomi aadama bi amul lu ëpp ñaan te yàlla jaam yi ko jege ci lu ëpp di ko ñaan di ko toroxlul di wane ne amuñ dara mënuñ dara lu dul ci kàttanam te dëgg-dëgg lii ku ko xool jël ñeenti téeméeri xar ak lu jege njëgam ak xar yoo xamante ne yeneen ak yeneen yoo xamante ne pour ay kilifa la dëgg-dëgg ku xool li xam ne lii ndimbal yàlla rek moo ci dugal loxoom waaye nit ak bakkanam rek amaana du ko mën waaye am na ñoo xam ne dañoo rey seen bakkan yi nit ki nag bu bakkanam dee ay jëf yu kawe rek lay sentu ñii dañoo rey seen bakkan moo tax ay jëf yu kawe rek la ñuy sentu te lii mooy li gën a tuuti ci seen jaamu yàlla yi eh, ndax mag ñi moom dépassé nañ di wane seen jaamu yàlla te lii yëpp feeñal ko du dara lu dul ngir xir nit ñi ci def lu baax ndax yàlla ci alquran ne yàlla wax na ci tagg na ci alquran ñiy maye seen alal guddi ak bëccëg ci lu ak ci lu fàngaaral tagg na seen jëf te loolu benn jëfu ngi sel nekku ci ndax jëf yu sëriñ bi di def ci suuf te kenn yëgu ko ëpp na fuuf yi nga xamante ne nit ñaa ngi koy gis ci kaw waaye yi ci kaw nii lenn la rek pour sawarloo ñi nga xamante ne defuñu woon ngir def ngir xirtal ñi nga xam ne am nañ mën nañ te defuñ te buñ gisee ne benn nit a ngi koy def te ñoom dugg nañ ci nit te lii nit rek daf koo maye balaa diine danañ góorgóorlu ngir def ko comme ñun amul lu dul ko di ñaan yàlla yàlla may ñu ñi sax ci liggéeyal ko ànd ak xol bu sell ndax amul benn sikk ne ñun amul sikk ne liggéeyal ko mooy liggéey Mawlana Cheikh Ibrahim li Baay diggee woon ne ku ko liggéeyal loolu ngay am ku dajewut ak Baay ci zahir boo dajeeg moom boo ko liggéeyalee loolu ngay am ak ñi nga xamante ne ñi ngi eh, ñi ngi yëkkati liggéey boobu ci seen ndodd di ko doxal yal yàlla nangu jëf yu bax yi yal na ko fay yal na ko ful yal na sax di gis yokute heure bu nek te deug deug yokute amna fekk nañ fi mbirim mi commencé ci lu tout waaye alhamdullilah tay gis nañ fu mu yem te ñi ngi am yaakar bu wér ci yàlla bo xamne du dog na dina passé fi di dem di dem ndax liggéeyal yàlla la heure bu nekk yàlla dana fi teg koo xamante ne moo koy continuer ndax lu nekkal yàlla rek du mës a taxaw te lii yàlla la nekkal moo tax mu commencé ci benn benn jëm ci fukk fukk ba tey mi ngi ci téeméeri téeméer te bés dana ñëw mu yegg ci ay june junne se bi nee na ma bés dana ñëw sax application lay doon boo xam ne nekk da dugal sa tur rek buñ la accepté rek nga ñëw jël sa xar amuñ benn sikki ne loolu mi ngi ñëw. ko fekkee ak jàmm. Eh, jaamu yàlla yëpp di sax di ci jëriñu yàlla defal ñu ko taxawuñu eh, yàlla mën na lool eh, yàlla na ko def asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu may wax rek mooy ne sëriñ bi lim nekk nii ci lu baax ku ko ci fekk ku ñëw di ko ci dimbale da nga ko ci fekk ba pare kon indi loo ko lu bees boo demee tamit keneen dana ñëwaat te ndimbal yooyu yëpp mi ngi am amaana buñ ci tollee da ngeen leen gis te gis nañ ittee boppam ci eh, ci gàmmu yi lim ciy def ci programme yëpp waaye yooyu tamit nga xam ne daan na am incha allah dina am nu mu ci lu jëm ci wàll joxe ay nag joxe ay bëy yoo xamante ne yu gën a bëri ci bési julli lay am ci buntu këram yi ci benn place am boo xam ne ci kawoon la loolu lépp ngir jéem a dox ba yegg ci ñu amul ñëpp mu fekk leen fi mu nekk mu jéem ñi am yàlla nag mooy maye ku may tamit moo ko jaarale si ku ko neex euh, nit bu buy mayee te amoo ci sa wàll mooy ne yàlla daf laa programmé wutoon ci ñooñu rek euh, waaye yàlla képp kum programmé ci lim amee nga gis ko nga ñàkk koo gis diñ ci jot ndax mbaaxam yegg na ci koo mun a may may ko même bu nekkul ci liste te loolu dëgg-dëgg mbaax mënu koo passé li am daal mooy di ñaan di ñaan di ñaan nit ñi jullit ñëpp fu mu ci nekk ñi ñaanal ko yàlla te di ñaanal yàlla ñu mel ni yàlla bëri ñu mel ni kemam ci ci ci umma islamiya fu mu ci nekk ndax dimbalante ci yàlla rek moo wóor